mbokk yi alhamdulilah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñi ngi santar suñu boroom mi ñi wërsëgal ñu dajewaat ci ab néegam fa fii ne jël benn bind ba aju ci suñu diine ñu koy tuddee bind ci wàllu fiq ñu ciy sukkandikoo téere bi di risaala bu ibnu abi zayd alqayrawaani ñu yegsi ci li ñuy tuddee baabun fil faraid buntu bu aju ci wàllu miiraas bañ koy dal waxoon nañu ne bokk na ci bunt yi gën a compliqué ci wàllu fiq waxoon nañu it ne mooy xam-xam bi jëkk réer ci xam-xamul islaam loolu it moo tax ba ñu doon ñaax nit ñi ñuy bàyyi xel enregistrement yiñ ciy def suñu demee ñu toog di ko dégluwaat ci dal ngir mbir bi di bañ a jaxasoo ci seen bopp biñ fi mujjee ñu ngi doon mujjee ci mbir boo xam ne bari na lool jur fitna ci wàllu miiraas mooy li ñuy tuddee miiraasu doomi ndey ixwatul umm looli sharia dafa jàngale ne nit ki bu faatoo moom kat bàyyiwul baay bàyyiwul baayu baay bàyyiwul la nga xamee ni nii moom mooy doom bàyyiwul doom bu góor bu doomam jur ngalawaay ku mel nii doomi ndeyam mën nañ koo donn doomu ndey yee nag bu ñuy donn booba duñ ca xool góor duñ ca xool jigéen su dee kenn la dañ koy jox juróom benneelu alal ja muy un sixième ñu koy tudde sulus su dee ñaar la moom it ñu jox ko un sixième soo ko boolee muy nekk ceeru alal ji suñ doon téeméer it duñ paase ceeru alal jooju ñoom ñoo koy séddoo góor ak jigéen ñoo ci bokk yem loolu mooy ñoom seen frère moo faatu wala seen sœur bu ñu bokkal ndey amaa nag masala boobu daa lënt ci ñu bari ñu xamul ñu général généraliser rek ay doomi ndey daal ñoo yem ci miraas ay kon bu seen yaay faatoo ni góor di donne noonu la jigéen di donne mbokk loolu njuumte bu rëy la yaay dañ koy donn ni ñuy donne baay ca mooy góor ñaar jigéen benn loolu kon lañ bëggoon a fàttali ba nañoo jël suñu bind bu bees ñu ngi ci baabul fil faraid su dee yow yaa ngi yor muul bu xonq bi boo xoolee ci page cent huit nga xool rek daanaka ñu ngi dal ci ñetteelu ligne ba wal axu yarisu lmaala ida nfarada su dee da nga yor sumaru dani nga xool ci page 636 nga xool ci ligne bu mujj ba page 636 ca la nga xam ne mooy liñ bi mujj ba da nga fekk mu ne wal axu yarisul maala idan farada non bu dee gis nañ ko kon mu ne wal ax kii nga xam ne dafa nekk frère yarisul maala idan farada day doon alal ja yépp su dee ne moom kese moo fa nekk kaana shaqiqan aw lil ab na doon daa bokk kafaatu ndey ak baay wala ñu bokk bàyyi kese wa shaqiiqu yi nga xam ne daa bokk ak kafaatu ndey ak baay yaxjubul ax lil ab moom day day fekk kam bokkool bàyyi kese kooku du donn bu dee ma nga fa wa in kaana axun wa uxtun fa aksar bu dee ne dañoo nekk frère ak sœur wala lu ko ëpp shaqaa'iqa awlil ab ñoom ñépp ñoo bokk ndeeg baay wala ñu bokk baay kese fal maalu baynahum alal ja ci seen biir lañ koy yemele li zakari mislu hazil unsayayni su ko defee góor day am ñaari cëru jigéen wa in kaana ma ax ma al ax zu sahmin budi abi ahli siham su dee ne frère ya am na ñoo xam ne dañoo am cër ci miraas ba ñooñu la ñuy jëkk a jox seen cër wa kaana lahu ma baqiya su ko defee mu daal di koy ñeel la des su dee kenn la wa kazalika yakunu ma baqiya lil ixwa wal axawaat naka noonu it bu dee mbooloo lañu la des ci alal ja dañ ko séddale góor ña ak jigéen ña di zakari mislu hazil unsayayni su ko defee góor am cëru ñaari jigéen mi ngi noonu mbokk kon fii day jàngale lii nga xam ni mooy miraasu un frère frère bu dee frère am daa faatu wala sœur am daa faatu su boobaa ñu xool kii kat ay waajuram nekk fi moom kat amul doom su boobaa dañu naan genn wàll dañu naan alal ji yépp kon moom lañ koy jagleel alal ji yépp moo ko moom maadaama kenn nekk fa ci ay waajur kenn nekk fa ci ay doom benn frère rek la kon alal ji yépp mooy moo ko moom loolu mooy bu dee dañoo bokk ndey ak baay su dee ne kam bàyyi bàyyi kese lañ bokk moom kat faatu na kenn la fi bokkal bàyyi ñi ñu wax sànq yëpp amul kon it dañ naan alal ji yëpp moom da koy jël moom kese amma bu dee am na kum bokkal ndey ak bàyyi ba pare am kum bokkal bàyyi kim bokkal bàyyi moom dañ koy dégager nit ki bu faatoo bàyyi kum bokkal ndey ak bàyyi kam bokkal bàyyi kese moom dootu doon mu safaanoog ñoom bokkal ndey nga xam ne waxoon nañu seen mbir ci njëlbeen dana am luñ ci waxaat su dee ni ñim bàyyi da cee am góor am jigéen su boobaa alal ji dañ koy miraase góor ñaar jigéen benn léeg-léeg nag alal ji mën na am ñoo xam ne am nañ ci cër masalan tey jii bu doon te ne ne waa ji kat bi muy faatu bàyyi ne fi seeni yaay bàyyi ne fi jëkkëram wala jabaram ñooñu la ñuy jëkk a jox seeni cër ba pare la des nag frères yi ñoom doog koo séddoo ci seen biir yemoo ca wala bu dee góor ak jigéen ñu jox góor ñaar jox jigéen benn loolu mooy li nga xam ne jot nañ koo jàng bu ñuy jël beneen bind fa in lam yabqa shay'un fala shay'a lahum su dee ni bañ joxee ña yeeyoo cër seeni cër alal ja daa jeex ñam bokkal ndeeg bàyyi duñ am dara ca miras ba illa an yakuna fi ahli siham ixwatun lil um li ummin xanaa lu dul mu bokk ca borom cër ya ay frère yoo xam ne ndey rek lañ bokk ka faatu qad warisul sulusa nga xam ne ñoom donnoon nañ ceeru alal ja wa qad baqiya axun shaqiqun mu des nag frère bu mu bokkal ndeeg baay aw ixwatun zukurun wala ay frère yum bokkal baay yoo xam ne yum bokkal ndey baay yoo xam ne ay góor lañu aw zukuran wa inasan wala boog ñu bokk sax ndey ak baay shaqaiq shaqaiqu nga xam ne ñoom ndey la bokk ak ñoom ak baay bu dee ñoom ñi dañoo nekk ma'ahum ànd ak ñam bokkal ndey gese fa yusharikuuna kulluhum ñoom ñëpp dañuy bokk al ixwatu li umm ñeel ña nga xam ne ndey kese lañ bokk fi sulusihim ca la nga xam ne moom mooy seen cër ya fa yakunu baynahum bi sawa su ko defee mu daa di doon ñu yemoo ca loola wa hiya alfarida lii mooy farata alati tusamma almushtarika bu ñuy tuddee ci wàllu miraas mushtarika mbokk day wax ne ñii nga xam ne ay frère lañu ak i sœur ñoom desetu alal la ñuy jël su alal ja jeexe jeex na amatuñu ñoom benn cir boo xam ne dañ koy am mi ngi noonu loolu bu dee ne dañ ko gis tey jii benn waaye ngi nii faatu benn soxna ngi nii faatu moom bàyyi benn doom bu jigéen bàyyi jëkkëram jëkkër ji moom moom la nga xamee ni nii moom mooy kaar ba la nga xamee ni mooy doomu jigéen ba day moom la nga xamee ni nii moom mooy genn wàll ga ak yaay ja ala kulli xaal pour lu gën a leer lu gën a gàtt mooy tey jii benn waaye soxnaa ngi nii faatu na jëkkëram la bàyyi ak la nga xamee ni nii moom mooy ay yaayam jëkkër bàyyi na jëkkër bàyyi na yaay jëkkër ji moom moom moom genn wàllu alalam bu dee juróom benn cër la ñetti cër ya jëkkër ji moom moo ko moom gannaaw loolu moom mu daal di bàyyi la nga xamee ni nii moom mooy yaayam yaayam gis nañu bi ñu koy jox cëram ci miraas kii faatu kot bàyyi na ñaari frère ci islam dani fu mu bàyyee ñaari frère yaay léegi un sixième lay am kon ñu jox ko un sixième ba mu des ñaari cër ñaari cër ya frère yam bokkal ndey ba yam bokkal ndey kese jël ko alal ja day doon loo xam ne nii jeex na ma waxaat ko ngir ñu mën a comprendre soxna si faatu na jëkkëram la bàyyi ak frère yum bokkal ndey ak bàyyi ak yaayam xaaj nañ alal ji ci digg bi ndax bàyyiwul doom jox jëkkër ji muy juróom benni cër jox nañ ko ñetti cër ñim bokkal ndey ak bàyyi mat nañ ñaar ceeru alal ja lañ leen di jox te mooy ñaari cër mu des benn cër ñu jox ko yaay ñim bokkal ndey ak bàyyi nag ñu ngi nii toog ñoom ni ñuy def alal ji jeex na takk su doon beneen masala la boo xam ne nii alal ja daa jeex ñoom bokkoon ndey ak bàyyi duñu doon dara waaye masala bi dafa mas a am ci jamono Omar ibnul Xattaab ñim bokkoon ndey ak bàyyi ñëw ci Omar ako waaw ñun sunu sœur bi daa faatu ñii mu bokkoon ndey ñoom doon nañu seeni cër léegi ñun ñu bokk moom ndey ak bàyyi ba pare amuñu ci amuñu ci dara waaw bu doon tene sax dañoo xool sunu bàyyi daa nekkoon xeer bu ñu neenal xanaa du ñoo bokk ndey Omar naa li ngeen wax ni dëgg la ca la Omar jëlee ña nga xam ne mooy cëru doomu ndey ya daa di cay boole ña nga xam ne dañoo bokk ndey ak bàyyi ne séddoo leen ko ngeen yemoo ci ngeen yemoo ci loolu it kaa boobu noonu lay demee mooy heure boo xamee ni nii alal dafa jeex ci miraas ca am doomi ndey yu donn ñi mbokkoon day ak bàyyi naru ñoo donn ndax ñoom desutu alal lañ doon xaar te desutu alal amu fa masalan tey jii bu doon waa ji amul bu doon soxna si amul jëkkër lan mooy xew dañuy jox doomu ndey yi seen sulus muy ceer jox yaay ji sulus muy un sixième li des ñi mbokkoon day ak bàyyi ñoo koy jël même bu dee kenn waaye nag léegi am na jëkkër am na ay doomi ndey am na yaay alal ji jeex na tàkk waa ñi mbokkoon ndey ak bàyyi nag ñoom bokkal ndeeg bàyyi kon ñu ne nañ leen booleeg ñoom bokkal ndey kese ñoo bokk yemoo ci miraas bi góor ak jigéen ci bokk yem ku nekk sa cër benn la ñim bokkal ndeeg bàyyi ñim bokk ndey ku nekk sa cër benn la ndax ñim bokkal ndeeg bàyyi dañ leen a yóbbaale ci cërub doomi ndey ya looloo tax ñu doon loolu mbokk mooy miraas bu aju ci wàllu ki nga xam ne dafa bokk ak ki faatu léeg bay bu dee liñ ciy dolli mu ne walaw kaana man baqiya ixwatun li ab su doon nag ne des te miraas ba ay frère yum bokkal bay kese la yusharikul lam yusharikul ixwatu lil umm duñu bokk ak ña nga xam ne dañoo bokk ak ka faatu ndey kese li xurujihim anil wiladatil umm ndax ñoom génn gën génne un ca la nga xamee ne nii mooy jur ga leen seen yaay jur mi ngi noonu loolu la wax ci wàll googe mu ne nag wala ngir ñu bala ñu jàll masala bii day wax jàpp naa li ma wax sànq jàpp nga ko kii bi mu faatoo doomi ndey yi donn nañu ñi mbokkal ndey ba ñu ngi doon xaar alal bi jeex na ñu ne kon nañ jël cëru doomi ndey yi boolu leen ko ñu séddoo ko kaay bi nag waa ji faatu soxna si masalan faatu na séddoo nañu alal ji alal ji jeex na doomi ndey yi donn nañ ñoom ceeru alal ji mu am nag ñum bokkal bàyyi kese ndax ñim bokkal bàyyi dañ leen di wax dama leen bokk ak doomi ndey ya comme nañ ko waxe woon ñoom bokkal ndey ak baay déedéet loolee dañu naan moom nekkul ñoom dañuy faxasu ci miraas ba dañuy faxasu ci miraas ba doonte ne na bu fa doomi ndey yi nekkul woon ñoom ñooy jël cër boobee nga xam ne moo nar a des ci miraas ba mi ngi noonu moom lay wax ca wàll googe mu indi beneen kaa ci sœur ca mooy bu dee da ngay jàng mu ne wa in kaana man baqiya uxtan aw axawaatin li abawayni su dee ne nag ña des ca jëlaguñu seen cër dañoo nekk benn sœur wala ay sœur yu mbokkal ndeeg bàyyi aw li abin wala fekk bàyyi kese lañ bokk uila lahunna su boobaa dañu leen di doon ñoo xam ne dañuy jël miraas bi yokk ko ngir ñoom bu ñuy xoolee ki faatu bàyyi ay frère mi ngi noonu ñoo xam ne ndey lañ bokk léegi mu bàyyi la nga xamee ne nii moom ay sœur kese la bàyyi bàyyiwul frère bu góor ay sœur nag la bàyyi yoo xamee ne nii ñoom ndey ndey bàyyi la bokk ak ñoom sœur yooyu ñoom cër la ñuy am cër la ñuy am su ko defee tey jii masala boobu ñu wax sànq su doon tenee frère yi dañoo bokk ndey ak baay dañuy jël cëru ñoom bokkal ndey ñu boole leen ko bàyyi kese lañ bokk ay frère ñoom dañ leen di dégager léegi nag ay jigéen lañu bu dee ay jigéen lañ ñoom dañoo am cër cër bi mooy kenn la su boobaa moom dañ naan moom day jël genn wàllu alal ji bu dee benn sœur kese la bay day jël genn wàllu alal bi su dee ne genn wàllu alal joojee cër yi dafa nekk six lan lay doon trois six la trois lay doon léegi su boobaa dañu naan kat yow jëkkër jëlal trois yéen frères yi jël leen trois loolee da ngay gis ni day daal di nekk la nga xam ne mooy neuf cër neuf cër yooyee loolu la ñuy wëlbati miraas bi au lieu que léegi ñu séddale ko ci six parties dañ koy séddale ci la nga xam ne mooy neuf parties loolu la ñuy tudde ci miraas al awlu mooy ñii am nañ cër ñii am nañ cër ñii am nañ cër cër yooyu yépp la ñuy boole dog koy diviser mi ngi noonu cër yooyu yépp la ñuy boole dog koy diviser dañuy jël cëru la nga xamee ne ni moom mooy sœur bi ba doon ay sœur da ngay gis ne quatre lay doon ndax ñoom ceeru alal ja la nga xam ne mooy deux ceeru alal ja la ñuy jël kon dañ naan six la quatre la sœur yee ko moom ah léegi nag ñu ne jëkkër yow yaa moom la nga xamee ni ni moom mooy trois la nga xamee ni ni moom moo ca des di sept ah ñu buñ ko génnee buñ ci génnee la nga xam ne mooy cëru frère ya boole lépp bu doon te ne ay sœur lañ dañ ko yóbbu dix bu dee benn sœur la ñu yóbbu ko neuf ala kulli xaal loolu c'est des mbir technique yoo xam ne li ma la ci wax pour nga retenir ko rek moo di ne ne nit ki bu faatoo bàyyi ay sœur kese sœur yooyu dañuy doon su dee ne amuñu frère ñoom cër la ñuy am su dee ne dafa bàyyi ay frère frère yooyu ñoom dañuy xaar desit la ñuy xaar desit boobu la ñuy jël boo dara desul ñoom ñàkk nañu bu dee ne la des kenn nekk fukk dul ñoom ñoom ñoo koy jël loolu kon mbokk mooy cas yi nga xam ne day bokk ci cas yi xaw a compliqué it ci wàllu miraas bala ñoo continuer ci bind yi ñu bàyyi mbokk yi ndax amuñu ci leneen luñ doon gën a leerlu incha allah bala ñu teg beneen bind naam naam naam ki nga xam ne dafa faatu bàyyi doom ñam bokkal ndey ñooñu bokkatuñu ci miraas ba képp ku faatu bàyyi doom képp ku bokkal ndey bokkatoo ci miraas ba ñam bokkal bàyyi kay la ñuy seet ndax kenn nekk fi lu dul ko góor ki walla a ku jigéen ki am na keneen ku góor koo xam ne moom lay àndal siddoo miraas ba na doon dañoo bokk ndeeg baay wala ñu bokk baay waaye maadaama doom am na ña nga xam ne dañoo bokk ndey ñëpp dañ leen di dégager maadaama baay mi ngi fi dañ leen di dégager doomu sët bu góor ma nga fa dañ leen di dégager loolu moom duñu ànd di donn wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaw bu jëlee seen wàll waaw doomi ndey buñ jëlee seen wàllu góor ak jigéen la ci yem képp miiraasu doomi ndey góor ak jigéen ñoo ci yem képp su dee kenn la un sixième alal ji lañ koy jox juróom benn junni la ah seen sœur bàyyi wala seen frère bàyyi waxuma seen yaay de seen sœur buñ bokkal ndey seen frère buñ bokkal ndey moo gaañu bàyyi na juróom benn junni benn doomu ndey la bàyyi góor ak jigéen benn junni ba lañ koy jox ñaari doomi ndey la bàyyi ku góor ak ku jigéen ku góor ki junni ku jigéen ki junni ñoo yem foofu ëpp na ñaar duñu paase ak ñoom ñaari junni yi lañ leen di jox ñu séddoo ko ak nu ñu mën a toll góor ak jigéen ñoom ñoo ca yem kaa bi ñu ubbee mooy su alal ja jeexee frère yam bokkoon ndeeg baay dañuy dem séddoog ñoom seen cër boobu su boobaa it góor ak jigéen ñoo cay bokk yem ku bokk ku mu bokkoon ndeeg baay ku mu bokkoon ndeeg ñoo cay bokk yem ndax ñoom boobaa dañ leen a yóbbaale mi ngi noonu wallahu aalam naam naam
benn méthode commune bu ñu waxee loolu mathématicien ñoom loolu du am benn méthode commune ni ñuy seete moom benn méthode commune parce que su waxee di ceer wax ci sixième wax te foog nga wute benn méthode commune moo tax muy wax neuf vingt ak dix xoolal donc loolu vraiment période bi sax soo ko laajoon histoire ci yu bëri ñu ko xam waaw foog nga nekk mathématicien pour mën a xam loolu loolu période boo xam ne yeneen bi bu muy dund ñu def ci ñoom di waxtaan
waaw loolu la loolu la loolu la loolu la rek mooy xam-xamul islam moom liñ ciy jëkk a wax rek nañu xam ni Occident bi tey fépp fu ñu yegg ñoo ngi ko jëlee ci jullit ñi ñi noonu am na ku ci bind benn téere bind ko le monde sans la dépendance des musulmans ca wane rek ci gàttal mboolem tey Occident fu ñu toll yépp sur le plan ay mathématiques ak yépp cosaan ba ñoo ngi ko jëlee ci arab yi arab yooyu ay ñoo seeni xar yemoon avant l'islam islam moo leen yee ci xam-xam yépp looloo tax islam moo raw ci wàll gépp ci wàllu ba baa nag ay fitna di dugg ci seen biir wallahu aalam waaw naam waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ndax waaw waaw ah waaw kii am cër ndax moo ëpp ko neen ku dul ñoom la chaque kay ki am cër kay yëmuloo ko amul cër waaw ki am cër moom la ñuy jiital dafa am miraas ñaari wàll koo xam ni cër la am ak kuy xaar aw des am koo xam ni day am cër ba pare xaar des mel na bàyyi bàyyi day am cër ba pare xaar des lu des mu jël ko amma bu dee ne ay frère ki sœur ak yooyu am na foo xamee ne nii mënuñu faa am lu dul ay des am foo xam ne mënees na faa am ay cër loolee moom la ñuy jàng nii nànk-nànk incha allah ala kulli xaal kon ñu jël beneen bind su dee ne kii nañu loolu naam kon mu ni yaakaar naa ñu ngi yem ci wa ibnul ax am kalax wa wa in kunna inasan li abawayni aw lil ab uila lahunna waaw loolu lañ mu joon jàng wal ax lil abbi ka shaqiq waaw mu ne wal ax lil abbi ka shaqiqi fi adami shaqiq illa fi lmushtaraka mu ne frère bi nga xam ne daa bokk ci faatu baay dana taxaw palaasu ñim bokkal ndéeg baay bam des ci masala bi ñu wax sànq masala bi ñu wax sànq mooy lan bu dee ne miraas dañ koo tëral ay doomi ndey bokk ca donn ñam bokkal ndéeg baay amuñu cir dañ leen di yóbbu boole leen ak ñam bokkal ndey kese bu doonte ne nag dafa am koo xam ne moom bàyyi rek la bokk ak moom ku mel noonu moom alal ja da cay faxasu du ca am dara mi ngi noonu léegi bu ñuy jël beneen bind mu ne wa ibnul ax kal axi fi adamil ax ki nga xam ne mooy doomu frère dañ koy considérer jox ko cëru frère su dee ne kay frère amu fa kaana shaqiqan aw lil ab na doon doomu frère boobu yéena bokk ndey ak baay ay ak ay yag baayam wala yag baayam baay rek ngeen bokk li ngi noonu wala yarisu ibnu ibnul axi lil umm waaye doomu frère boo xam ne ndey ngeen bokk wal axu li abawayni frère ba nga bokkal ndey ak baay yaxjubul ax lil ab moom day day fekk ka nga xam ne bàyyi rek ngeen bokk mi ngi noonu kon fii mbokk miraas ngi nii waa ji bàyyiwul ay baay bàyyiwul ay doom bàyyiwul ay frère alal ji nuñ koy def dañuy xool doomu frère am bi mu bokkal ndey ak bàyyi ka fa sës ñooñi ñoom ñooy jël alal ja doonte ne fii nee na da- doomi frère mook frère yem allahuma lu dul ne yem googu nekkul yemu gu ñu boyal ndax doomu frère gis nañu ay frère bu seen mbokk gaañoo buñ matee ñaar seen yaay dootul donn lu dul un sixième bu doonte ne matuñu ñaar yaay ja day donn ceeru alal ja amma bu dee doomu frère mënul fekk yaay ci un sixi ci ci la nga xam ne nii mooy lii di ceeru alalam gannaaw ba ki faatu bàyyi maam ay frère am dañuy doon waaye doomu frère bu maam di dund ñoom du ñu doon naka noonu itamit li ñu wax sànq ci ne ay doomi ndey bu dee ña ngay doon te ñoom bokkal ndey waaye du ñu doon dañu cay boole ak ñoom loolu doomu frère duggul ci loolu ala kulli xaal ci yu mel noonu lañ ko génne waaye daal nañ jàpp ne su dee ne waa ji faatu na bàyyi fi ay baay bàyyi fi ay doom bàyyi fi ay frère dañuy jëli doomu frère ba mu bokkal ndey ak baay kooku moom mooy jël alal ja nekku fa ñu jëli doomu frère ba mu bokkal benn baay daa di koy jox alal ja su dee ñoom ñaar ñoo fa nekk frère bi mu bokkal ndey ak baay doomam ak ki nga xam ne baay la bokk ak moom doomam frère ba doomu frère ba mu bokkal ndey ak baay day dégager doomu frère ba mu bokkal baay kese kenn ki rek mooy jël alal ji yépp loolu moom lay wax ci loolu soo gisee fi nga yem ñu jël beneen bind mu ne wala axulil ab frère ba nga bokkal baay awla min ibni axin shaqiq moo gën a yey ci alal ci sa doomu frère ba nga bokkal ndey ak baay wa ibnu axin shaqiq doomu frère ba nga bokkal ndey ak baay awla min ibni axin lil ab moo gën a yey ci doomu frère ba nga bokkal baay kese wa ibnu axin lil ab doomu frère ba nga bokkal baay yaxjubu amman li abawayni kooku day dana dàq sa baay tax ba nga bokkal ndey ak baay mooy ki nga xam ne mook sa papa ñu bokk ndey ak baay sa doomu frère bu dee mi ngi dund dañ koy jox alal ja ka bokk sa papa ndey ak baay kooku du ci bokk mi ngi noonu wa amul abuwayni waaye nag bu dee bàyyi tax ba bokk ak sa papa ndey ak bàyyi ma ngay dund te moom rek a fësës yaxjubu amman li abin dana dégager bàyyi ba nga xam ne moom sa papa bàyyi rek lañ bokk wa ammun li abin bàyyi ba bokk ak sa bàyyi bàyyi kese yaxjubu ibnu am dana fekk doom boo xam ne moom dafa sos cosoo ci koo xam ne moog sa baay ñoo bokk ndey ak baay wa ibnu amin lil abawayni doomu baay tax bu bokk ak sa baay ndey ak baay yaxjubu ibnu amin lil ab dana fekk koo xam ni moom kat baayam moog sa baay baay lañ bokk wa hakaza yakunu al aqrabu awla naka noonu day wane ni ka gën a yey mooy ka gën a yeyoo ca alal ja li ngi noonu bokk kon fii day wax rek ne nit ki bu dee dafa faatu su bàyyee alal ca ña gën a jege ci moom mooy ay doomi frère am imma frère yooyu ñoo bokk ndey ak baay ñooñu ñooy jël alal ja ñam bokkal baay duñu doonu dara amul ñum bokkal ndey ak baay ñam bokkal baay ña nga fa ñu ne kon nañ ko jox ñum bokkal baay amul nag benn frère du kum bokkal baay du kum bokkal ndey ak baay amul ay doom amul ay wéyjur kon ñu ne nañ dem ca frère yam bokkal ndey ak baay jox leen alal ci nekkuñu fa ñu bokk mooy nañ dem ca doomi frère yam bokkal ndey ak baay jox leen alal ja nekkuñu fa ñu ne kon nañ jëli doomi frère jam bokkal baay jox leen alal ja nekkuñu fa ñu doog a jëli ka nga xam ne moog baayam ñoo bokk ndey ak baay te du ko bàyyi tax ñoo bokk ndey ak baay kookoo jël alal ja nekk fa ñu doog a jëli bàyyi ba nga xam ne moog bàyyam bàyyi lañ bokk ñu doog koo jox alal ja ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam da doon wax ni alal ji de lépp lu fi des nañu xool góor ga gën a jege ñu jox ko ko loolee kon moo aju ci échelon ah wàllu miraas noonu la demee mooy doom yi ak way jur yi gannaaw ba frères yi gannaaw ba doomi frères yi gannaaw ba nag bàyyi tax yi doog a ñëw gannaaw ba seeni doom doog a ñëw noonu la miraas di demee ci wàllu googee su ko defee bu dee dañuy jël beneen bind ba tey mu ne wala yarisu banul axawaat maa kunna sa doomi doom yu sa doomi sœur ñooñu duñu donn alal say jarbaat ñooñu duñu donn alal te doon da ngeen bokk ndey baay wala ngeen bokk baay wala banul banaat sa doomi doom yu jigéen ñooñu bokkuñu ci miraas wala banaatul ax sa doom yu jigéen yoo xam ne sa frère da ko jul bokkuñu ci miraas maa kaana na doon da ngeen bokk ndey baay wala baay kese wala banaatul am doom yi nga xam ne sa rakku baay wala magu baay ko jur ñi ay jigéen bokkuñu ci wala jaddun li ummi la nga xam ne mooy baay ba jur yaay kookit bokkul ci miraas amma yaay ja jur yaay moom bu fa yaay nekkul day donn waaye baay ba jur yaay bokkul ci miraas wala amun axu abika li ummi naka noo nit ki nga xam ne moog sa papa ñoo bokkoo ndey kese kooku bokkul ci miraas wala yarisu abdun wala man fihi baqiyatu riq jaam bokkul ci miraas koo xam ne yaa ngi jéem a gore waaye matalogoo bokkoo ci miraas wala yarisul muslim kaafir yéeféer jullit du donn yéeféer wala kaafir muslim yéeféer du donn jullit wala ibnu axin li ummi ka nga xam ne nii sa doomu frère ba nga bokkal ndey ba ba nga bokkal ndey kese ay doomam duñu donn mukk wala jaddun li ummi baay ba nga xam ne moo jur sa yaay kooku du donn mukk amma yaay ja jur sa yaay moom danay donn bu fa yaay nekkul wala ummi abin umm naka noo nit yaay ja nga xam ne moo jur baayu yaay kooku du donn wala tarisu ummu abin ab ma waladiha mi ngi noonu abil mayit naka noonu it yaayo baay kooku du donn bu dee baay mi ngay dund wala tarisu ixwatun li umm la nga xam ne moom mooy ay frère yoo xam ne ndey rek lañ bokk ma al jadd su dee maam bu góor ma nga fa lil ab ba jur baay wala ma al walad duñu donn fekk doom ma nga fa wala waladi walad duñu donn fekk doomu doom bu góor ma nga fa zakaran kaana waladun aw unsa na doon doom boobu góor la wala jigéen su boobaa ñoom bokkoon ndey moom pare nañ ci miraas ba wala miraasul lil ixwa ma al ab ma kaanu la nga xam ne mooy ay frère bu seen bàyyi di dund pare nañ ci miraas bi duñ ci donnati wala yarisu am ma al jadd la nga xamee ni moom mooy bàyyi tax ki bokk ak bàyyi ndey wala ki bokk ak bàyyi bàyyi wala ndey ak bàyyi bu dee seen ba maamu ki dee mi ngi dund ñoom dootuñu donnati wala ibnu axin ma al jadd doomu frère it du donn mukk di ànd ak baay wala yarisu qatilul amd ki rey fekk moo ko tey kooku bokkatul ci miraas bi min maalin wala diya kooku du donn ci alal ja du donn ci diya ba wala yarisu qatilul xata'i amma ki rey fekk daa juum min a diya moom day du donn ci diya ba waaye waa yarisu min al maal dana donn nag ca alal ja nga xam ne moom la waa ji bàyyi wa kullu man la yarisu bi xaal koo xam ne nii nag du donn fala yaxjubu waaris kooku du tere keneen ka war a donn mu donn loolu lay wax ca wàllu googee mbokk kon fii da lay tënkal ay jege ñaale yoo xam ni jege gan jege kat du tax ñu donn waa ji nga xam ne dafa faatu bàyyi ay alal ju bari ña nga xam ne ñooy doomi sëram ñooñu bokkuñu ci miraas bi doomam bu jigéen ay doomam bokkuñu ci miraas bi amma doom bu góor doomam doomam doomam ba fu mu yem ñoom ñëpp dañuy doon ak seeni doom amma bu dee doom bu jigéen moom bokkul ay doomam bokkuñu ca la nga xam ne nii moom mooy miraas loolu yi lay wax ci frère bi bokk ak sa baay la doon dañu bokk ndey ak baay keneen ku mu mën a doon ñu ngi noonu ay doomam bokkuñu ci miraas loolu lay wax ci yéeféer du doon julit loolu moom borom xam-xam yépp dëppoo nañ ci la ëpp ci ñoom it dañ ne julit du doon yéeféer am na ci rek ay benn benn ñuy jàpp ne jullit mën ngaa doon yéeféer ñu ngi noonu ndax alal ja amul orma donc mën nga ko donn waaye nag loolu yeeyul la ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne hadis bi yonente bi alayhi salaam waxtu bi ngi ci buxaari muslim yonente bi nee na laa yarisul muslim kaafir wala al kaafirul muslim julit daal du donnante ak yéeféer mi ngi noonu loolee kon moom la julit war a xam mu indi it ay kaa yoo xam ne kaa maam yi la mooy maam bu dee ne góor la ca yaay la jur ku mel noonu du donn amaa nag bu juree bàyyi moom dana donn ca suñ dars bi di ñëw insha allah te loolu la ñu commencé loolu it lay wax ci ne ay frère dañu ànd ak seen maam donn waaye doomi frère duñu ànd ak seen maam donn mi ngi noonu ci gàttal loolu mbokk moom mooy tënk ba nga xamee ne tënk na ko allahuma lu dul ki rey bu dee ne moom moo tey ki mu rey moom du donn dara ci alal ci te loolu borom xam-xam yi dëppoo nañ ci mu des ixtilaaf ci waaw bu dee ne moom tayul rey gi nag bu dee teyul rey gi am na ñoo xam ni dañ ne ba tey du donn am na ñoo xam ne dañ ne dana donn lépp diye ba cay jógee sax dana ca donn amma bu dee mazhab Malik te moo gën a digg doomu te gën a raisonnable mooy bu dee moom tayul rey gi te bokk ci ñuy donn imma baayam la rey wala frère am la rey wala ilaaxiri su boobaa tayul rey gi alal jaw kam rey bàyyi loolu moom dana ko donn amma nag diye bi nga xam ne day jóge ci ki rey jëm ci moom nga xam ne ay mbokkam yeneen war mën nañ ko caa dimbali diye boobu moom du bokk ci ñu koy donn waaye alal ja nga xam ne ka faatu bàyyi na ko su boobaa moom dana doon lu koy doon mbokk kon lii mooy tënk ci li ñu waxoon ci njëlbeen bunt yi gën a compliqué ci wàllu fiq mooy lii waaye incha allah déglu gi nga koy déglu dana la may benn vision ba ëllëg sooy dégg yenn ci miraas nga jàpp ne ah diw day jàppoon nañ ne war naa mën a donn ila axiri ila axiri ba mën a am base boo xam ne au moins da nga ca mën a sukkandiku ba laaj ñi ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla yombal ci ñun bépp xam-xam bu ñuy jëriñ te wërsëgal ñu ñu ñu jëfe ko nam ko gërëmi wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ala kulli xaal ki nga xam ne dafa takk jabaru boo xam ne ni du jullit nañu xam ni bu dee soxna si wurul donn bu soxna sa dee wuru caa donn dara loolu mooy la nga xam ne moom la lislaam àtte mooy du ko donn naka noonu moom it bu dee du ko donn loolu moom mooy mbir bi looloo taxit takk leen ay danger rek moo ca nekk waaye daal ñu xam loolu ki nga bokkulul moom diine du ngeen donnante ndono jaamu yàlla la yàlla ko détaillé ci téeréem jagleel ko jullit ñi koo xamee ne nii du jullit bokku ci mi ngi noonu yow it jullit kee dee na alalam sa yoon nekkatu ci ki nga xam ne dafa faatu ñu fay ko la nga xamee ne mooy assurance loole dañ koy boole ci alalam mi ngi mel ne rek diye bi nga xam ne dañ koo rey assurance diye moo ko jiitu ci lislaam ki nga xam ne dafa ñëw rey nit diye bañ koy laaj ni ñuy donne alal ji mu liggéey noonu la ñuy donni diye bi mi ngi noonu loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam assurance classique waaw boo xam ne lislaam nanguwu ko wala ku li xaal assurance bu lislaam nanguwul kii waaw
may laaj ndax bu fekkee ne moom la ahlu kitaab chrétien ak ak juif daañu doon
ala kulli xaal li ñuy li ñuy waaw lépp loo xamee ni nii alal la waa ji nga xam ne dafa faatu alal jooju ñu astane ko ne ko moom moo ko moom alal joojee daa war a bokk ca la nga xamee ni nii lu ñuy donn la dama xamul nag lu ñuy wax ay assurance classique ak assurance leneen mais daal bu dee ne waa ji ci boppam moom moom moom la ñuy askane ne alal ji moom moo ko moom su boobaa ñi nga xam ne ñooy aji ndono yi ñoom ñooy nekk di doon alal joojee moom ci boppam nag nan la def ba dugg ci yenn assurance yi am na ci assurance yoo xam ne l'islam moom da ko xaraamal masalan li ñuy tuddee ay assurance vie dem joxe alal ne léegi danaa cotiser temps bi su ma dee ñu ne la dañ lay fay cent millions da nga loolu mbokk julit xamul assurance bu demee noonu loolu itamit bu dee ne alal ja noonu rek la demee la nga xam ne mooy ay mbokkam waru ñoo jël alal jooju ndax cosaan ba baaxul mu safaanoo nag ak loo xam ne dañ ne assurance accident la bu mu def ci service am wala bu mu def ci taliba wala mu def ci nangam nga xam ne ñam amal accident boobee même bu doon chéri ami ngi fi dañ leen di laaj diye ku rey nit ca tayoo ko dañ leen laaj diye bu toll noonu loolee lañ cey jël di ko di ko joxe mënuñu am lay ci luñ koy araamal ndax dafa am cosaan ci diine wallahu subhanahu wa taala aalam ci wàllu googee bu dee ci wàllu ndax li yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ni ñoo xam ne dañoo bokkul diine duñu donnante loolee am na borom xam-xam yu ko yóbbu ba xatta ci ne chrétien du doon juif juif du doon chrétien am na nag ñoo xam ne dañ koo del delloo ci ne déedéet mille bi yonent bi alayhi salaam nee na al kufri milla waxida kéeféer benn milla la kon kaw suuf ñaar rek fi am milla diine islam ak milla kéeféer kon la yonent bi doon wax mi ahlu millatayni mooy mu ngi ci jubbi jullit ñi ak yéeféer yi de manière générale donte ne ne comme mu la ko waxee am na ci yenn borom xam-xam yu jàpp ne jullit ak chrétien duñ donnante wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ah ah ah waaw waaw waaw assurance vie boobu moom vraiment islam nanguwut assurance vie bu dee ne loo xam ne yaa dem di ko def ci sa coobare ak bopp naam naam bismillah waaw bismillah waaw ala kulli haal waaw naam naam war na ko leeralal ndaw si waaw parce que booy séyeg moom it war nga koo xamal man julit la xamal ko sa charte yi diine loolu moom yey la nga leeralal ko amma soxna si ci boppam su taxawee ne damay donn ci foo xam ne réew mu ñu attewewul ci lislaam it kenn mënu ci dara waaye yow su waru gar war nga ko leeralal ne ko soo dee woon du ma la donn su ma dee it amoo droit donn ma mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam doo mooy ala kulli xaal ngëneelu fu ñuy tekkee say xawma ko waaw ngëneelu fu ñuy tekkee say moom xawma ko allahuma lu dul jullit buñ ko woo ci loo xam ne ak jaamu yàlla la mu wuy si fa loolee sëy laak lu mu mën a doon loolee yiw la la koy ñeel amma ca jóg gëm jóg wuy ji mbokk jullitam ngir seedeel ko waaye jëmmi nekk ci jàkka ji rek ñuy takk sëy nga tekke ko loolee xawma ngëneelam naam amma ndax nit ki am na droit def testament may doom ba mu amul ci yoon may ay xaritam na am képp ku lu dul donn rek am nga droit defal ko testament sa frère bi nga bokkoon day bàyyi kum mën a doon képp koo xam ne wóor na la ne moom su ma dee woon tey moom du donn am nga droit def testament ne sama alal nañ ko ci jox nangam li nga xam ne daal moom nga amul droit mooy ku lay donn sa ndey say way say say say baay say doom sa soxna sa jëkkër kaza wa kaza ñooñu moom kenn du leen defal testament wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam suñu demee ñiy donn jël seeni cër ñi ci des dañuy xool góor gi gën a jege ñoom ñoo ko moom moo tax mu wax la sànq frère doomu frère la ci bokk ak baay ay doomam ñoo ñépp buñ demee ba jeex ba jeex ba jeex alal ja borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf ndax dañ koy delloo ña nga xamee ni nii ñoom waruñu woon a donn ca bokk ak moom muy nijaay yaag doomi sœur yaag doomi doomi jigéen yaag loolu ñu tudde ulul arham ndax ñooñ dañ leen koy jox wala dañ koy delloo baytul maal borom xam-xam am nañu ixtilaaf foofu dañ ne alal jëmel noonu bu desee dañ koy delloo trésor public waaye ñee kenn du leen ko jox am na nag lenn ci ay borom yi xam-xam yoo xam ne dañu ne trésor public boobee presque lu ci bari ci réew yu bari amuñu ko bu ñuy delloo ay miraas kon bu ñu xoolee ñi war a donn ci ku góor càmbarga càmbarga càmbarga ba famille bi jee xamuñu kenn ko war a donn alal ji nañ ko delloo ñooñu nga xam ne wur ñu woon a donn ci cosaan muy ñim bokkal côté côté jigéen na doon doomi doomi jigéen lañu na doon ay jarbaat lañu na doon ila axiri ila axiri mi ngi noonu wallahu aalam waaye daal ku góor kum nekk ci côté ndey ak baay baay lu mu sori sori moom la ñuy jox de sutu alal ja wallahu subhanahu wa taala aalam naam bismillah naam ndax nit ki mën ngaa defal testament yéeféer ah kay bu dee ne moom yéeféer la du la doon kon mën nga ko defal testament mi ngi noonu ngi mel ne sa jabar bi nga xam ne comme question bi doon laaj léegi alal ji boo dee sa jabar ji du doon nga ne su ma dee sama jabar nañ ko jox tant ci sama alal alal joojee tant que paasewul sa ceeru alal islam du koy wéyal waa ji daal faatu daal bàyyi na trois millions un million bi am na droit ne su ma dee doxal leen ma diw doxal leen ma diw doxal leen ma diw fii ak paasewul un million bi na doon ñooñu ay jurit lañu na doon ñooñu ay yéeféer lañu mi ngi noonu ndax bi ngay dund am nga droit may yéeféer na ko leen booy dee am nga droit may yéeféer mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain